asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi na def ñu ngi leen nuyu baax di leen ziyaara mbaa yéen ci jàmm alhamdulilah tey nag ñu ngi ñëwaat ci beneen astuce boo xam ne si bu am solo la mooy nit ki nan lay def ba kenn du ko mën a dugal ci groupe whatsapp lu dul ci autorisation lu dul parce que da ngay xëy rek ay message yu bari di dàq sa téléphone te doo xam kan moo la dugal ci group loolu nag pour nga moytu ko astuce bi daf lay jàngal nooy def ba moytu maa ngi lay ñaanal yow mi nga xam ne abonné ko nga dugg nga bës bouton s'abonné bi ci suuf vidéo bi bu ko defee bépp vidéo bu ñu dugalaat rek di nga euh, di nga ci jot incha allah euh, abonnement bi comme ni ñu koy waxee nekkul abonnement yoo xam ne abonnement yu ñuy fay la abonnement bi doo ca fay dara da ngay bës rek pour abonnement bi li muy jëriñ rek mooy bépp vidéo bu ñu dugal rek euh, nga jot ci kon nii lañ koy def incha allah ñu ngi ñëw ci whatsapp bi xaaral léegi boo ñëwee fii nii ci whatsapp da ngay accéder ci biir whatsapp da ngay dugg whatsapp. mooy fi ma teg souris bi ñu hmm, cliquer boo duggee workshop boo duggee rek yaa ngi jàkkaaru ñetti bouton fële ca kaw mooy ci wet cercle de recherche bi ñetti bouton mooy foofu ma teg souris bi boo fi duggee euh, sama loxo dafa laal fii waaye du fii waaw boo duggee fële na génnal tableau bi nga xam ni six articles ñu ngi fi léegi paramètre bi ci suuf bi ma teg souris bi nii paramètre bi <coughs> paramètre bi boo fi cliquer xaar ñu cliquer ko boo cliquer lii la lay génneel menu bi bu la génneelee menu bi da ngay défiler ba ci compte bi fi ñu def compte yaa ngi koy gis boo xamewul compte bi mooy caabi bi rek fi ñu def clé bi gis caabi bi mu ngi noonu ci càmmoñ fii ma teg souris bi foofu mooy compte léegi boo ko cliquer menu bi la lay génneel six articles mi ngi fi waaye bi ci kaw confidentialité bi ci confidentialité bi mooy ci xomb biñ tëj foofu ngay appuyer mooy foofu ma tekki bi suñ cliquer xoolal lii la génneel buñ cliquer xaar ñu défilé ñoo <coughs> du foofu encore voilà euh, da ngay wàcc ba accès ci fiñ bind groupe mi ngi noonu ci suuf mooy fi ma teg souris bi foofu groupe lañ fi bind gis nga nombre contact yi nga am yëpp day feeñ ci suuf mais nga am 333 contact hmm, fii nag boo ko cliquer xaaral hmm, léegi ñu cliquer ko boo cliquer fii lii la lay génneel dafa lay génneel tout le monde génneel la mes contacts génneel la mes contacts sauvegardés léegi lii ci kaw nii tout le monde jooju noonu boo ko cliquer nga activer ko ku ya képp ku ku am whatsapp rek mën na laa dugal ci groupe whatsapp maanaam ñëpp la mën a dugal ci groupe whatsapp ku la bëgg a dugal ci groupe rek mën na laa dugal ci groupe mooy tout le monde jële su fekkee deuxième bi la say numéro contact mooy ñi nga enregistré seen tur ñoom rek ñoo la mën a dugal ci groupe waaye ñeneen ñu dut ñoom mënuñu laa duwal ci groupe ñaari ngeen noonu baneen bii nag nga xam ni mooy troisième bi mooy fi ñu bind mes contacts sauvegardés bii ma teg sori bi bii nii moom boo ko cliquer lii la lay génnee la say contact li nga am ci ay numéro képp ko enregistré rek turam day nekk fii léegi nii saa ma activé mode bi nga xam ne si daf lay jariñ kenn du la mën a dugal ci groupe ni lay mel ñoom ñëpp dañuy coché gis nga li fare eh, càmm bon bouton yu weex yooyu yi la fare ndeyjoor te mu am benn eh, cat bu sew bu ci nekk yooyu noonu mooy wenee ni kenn mënu laa dugal ci groupe waaye soo bëggee ne kenn dugal ci groupe mënu laaj la ni la man kat dama laa jéem dugal ci groupe sanga waaye mënu ma laa dugal léegi yow nga bëgg a dugg ci groupe boobu dangay ñëw ba fii nga gis turam nii comme Modou Modou bëgg na ma dugal ci groupe nee na ma kat bëgg na ma laa dugal ci groupe dangay ñëw ba fii nga xool turam gis nga souris bi mu ngi nii ci kaw Modou maa ngi ci def Modou bagage euh, léegi fii da koy décoché tre bien léegi boo décoché Modou mi saa boo la bëggee dugalaat ci group di nga dugg ci groupe waaye ku dul ko décoché nii rek du la mën a dugalaat ci groupe du la mën a dugal ci group waaye comme Modou demandé na ma bëgg maa dugal ci groupe xool naa ni groupe boobu neex na ma damay <clears throat> ñëw ba fii ma décoché ma décoché fii su ma décoché nag léegi Modou moom saa su ma bëggee dugal saa su ma bëggatee dugal ci group dina ma mën a dugal ci groupe te du am benn jafe-jafe waaw yaa gis nga ñii ñëpp léegi boo ko coché waatee tamit boo bu neexee tamit nga coché waat ko ba la dugalee benn yoon nga coché waat ko nga xam ni day nekkaat ci liste par défaut bi nga xam ne day bokk ci ñi la du mën a tey dugal ci groupe yaa gis nga day coché naa ko décoché naa ko boo ko décoché moo mën na laa dugal ci groupe boo ko coché day fekkiwaat ñëpp kenn du ta mën a dugal ci groupe voilà xoolal boo défilé gis nga contact yëpp dafa coché gis nga yaa ngi gis contact yi yëpp dama ko coché maanaam boo activé mode vert automatiquement contact yi day coché wu waaye li li boo décoché bi li muy jariñ mooy ku la ñaan autorisation nga ñëw décoché ko comme ni ma defoon Moodu sànq nii nga xam ne woo na ma ni ma bëgg na maa dugal ci groupe ma décoché fële na la waaye sax ba activé fii rek contact yi yëpp dañuy coché wu nga xam ne dina la won ni la lu yow léegi kenn mënatu laa dugal ci ab groupe lu dul mu neex la waaw kon euh, sama gars yi loolu moo nekkoon vidéo tey bi di leen jaajëfal bu baax a baax ci topp bi ngeen topp vidéo yi di ñaan suñu borom nag euh, coronavirus bi nga xam ne ci phénomène mondial la suñu borom saafara ko ci barke weeru koor bi barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam te itam ñuy weñ fàtte ñaan kenn ku nekk boo jullee eh, nga ñaan suñ borom woyofal ñu nattu bi parce que nag nattu la mais yal na ko suñ yal nañ ko suñ borom woyofal bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa